jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci stade Jom Iba Mar mise bi nag cinq millions la waaye mbokk yi compétition bi li ci gën a neex mooy ndaanaan yi doon séntu ci làmb rawatina bëre simple bi dañoo bindu ku mel ni Doudou Sané gis ngeen ko mu dugg si bindu ku mel ni Boy Faye ku mel ni euh, Serigne Ndiaye 2 Fambuda ak kan kii di nga xamante ne mooy Émile François Gomis ñëpp doon ko xaar ci lutte traditionnelle bi depuis bi muy préparé combat ak soq ba tey Franc xamoon naa ne tey ji stade Iba Mar mënul mucc ci moom waaye di ngeen gis lamb ju neex lamb ju rëy lamb ju garaaw noonu dugg si na Émile François Gomis a ngi noonu mbokk yi mbokk yi noonu dugg na ma nga noonu ndeysaan Franc dugg si na ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan Emine François Gomis ma nga noonu ndeysaan ma ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu

gannaaw may ma rek photo bi. noonu di ko butéel ab ma nga ca déeba moom Franc dugg si na ma ngay jug nañ ma dugg moom Franc ndaysaan ma nga noonu ma ngay bind rëdd na ci xibla yi samp na bee jën bi ndaysaan ma nga noonu moom Franc ma ngay léemu ndaysaan ma ngay léemu ndaysaan ma ngay léemu daw daw na ma wër oh Franc dugg si na ci compétition bi mbokk yi lamb ju nar a garaaw Franc ngi noonu ndaanaan yëpp ay daje ndeysaan ndaanaan yëpp daje ma di dem moom Franc leket ya na ndeysaan ma nga Ndeysaan Franc wa ngi nii mbokk yi dimanche bi weesu heure bi mu ko fekk fële Ndeysaan ñu ngay gas ñu ngay sotti ndox mi ma ngay tis ma ngay ñaan ma ngi raayoo moom Franc raay waat na ko moom Franc <laughs> raay waat Franc eh. ay Franc waay jox na gaay ndeysaan ma nga noonu ma ngay wër ndeysaan ma ngay léemu tibb na Franc ngi noonu ndaysaan ma ngay dem ma nga noonu di dem ma ngay wër ndaysaan ña nga noonu Franc ngi noonu di ñëw ndeysaan Franc ngi noonu di ñëw cey li bi door Franc ngi noonu di ñëw Franc ngi noonu di ñëw ndeysaan am na lu mu wërale ba pare ma ngay léemu moom Franc Ndeysaan ma nga noonu ma nga ca débat déb bi ma nga ca xarfa xufa bi Franc ma nga ca gàllaaj ya ma ngay xool fan lay samp ci mikaayam ma ngi koy xool ma ngi koy xool moom Franc

Protégé. Mamadou Thiaw. Mamadou Thiaw. Magnantine Mamadou Thiaw. Alassane Sarr. Loro Ndiaye Alassane Sarr. Baboubacar Saliou Faye. Baboubacar Saliou Faye. Ousmane Pouye. Ci animation merci.

mbokk yi Doudou Sané noonu dugg si na ma nga ca digg géew bi ma ngay def ay débat débam ma ngay bind di léemu def ci ngemb li moom Doudou Sané jaayu noo ma ngay dem ndaysaan ma ngay dem coppite am na ci diggante bi fa Serigne Ndiaye 2 defoon ci bi kaayam bi weesu foofu la ko Doudou Sané def xoolal soow mi xoolal sengoor yi xoolal gàllaaji hee Doudou Sané mbokk yi Doudou ngi noonu ndeysaan xoolal ñi mu àndal ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan l'enfant de Diof yoor a ngi noonu ndeysaan ndaanaan la ci mbër ma ngay toog ma ngay toog toog na tàllal na tànk bi toog na ci cimikaay bi ma ngay def débat débam ma nga ca wàllu débat déb bi këpp na leket bi suuf la samp na jël na béjjën ba samp na ko jàkkaarloo naa géew bi génnee na beneen samp na ndaysaan ma ngay samp génnee na wat beneen samp na ndaysaan samp na ko ja ma nga noonu moom Doudou Sané ma ngay def ay débat débat butéel yaa ngay génn butéel baa ngay génn ndeysaan butéel ba génn na butéel ba génn na ma ngay teg ah waay compétition bi Blindé sax ci biir compétition bi ma moom it moom Blindé bu Grand Médine ci compétition bi làmb gi ndaysaan ma nga noonu fan yee daa nekkoon ci di préparer leen di MMA ba mu ci jugee tey gis ngeen ko ñëw na fii ci stade Diop Iba Mar bindu si ndaysaan Blindé ngi noonu badaa ngi noonu boo ko gisee rek xamal ni Serigne Ndiaye ñëw na boo ko gisee rek xamal ni Serigne Ndiaye yegsi noonu day waaye day bàkk bàkk bi yëpp ba daa ngi noonu ndeysaan moo ànd ak Serigne Ndiaye nee na tey mal la ba daa ngi noonu yegg si na ndeysaan dugg si gaayu Serigne Ndiaye la <laughs> ndaysaan bagage yaa ngay ñëw ma ngay dugg bi yëpp bu ci nekk fu mu dem moom lay wuyoo Serigne Ndiaye de moom lay wuyoo ci bëre dóor bi ndaysaan koreyaas da koo dab ndax wow gi mu wow dëgër gi mu dëgër mën a bëre gi mu mën a bëre ndaysaan Moussa Diafat Ada Boy Baol a ngi noonu ndeysaan ma ngay léemu yëkkati na loxo bi moom Ada Boy Baol ndeysaan Ada a ngi noonu Ada ngi noonu ndeysaan Ada Boy Baol dugg si na ndeysaan Ada Boy Baol ma noonu tey du yomb ndeysaan Ada Boy Baol a ngi noonu ndeysaan Ada ngi noonu ma ngay jéggi moom Ada Boy Baol champion la Ada ngay léemu ma ngay dugg ndeysaan Ada Boy Baol noonu Serigne Ndiaye de dugg si na aj na loxo bi ci kaw ndaysaan jublu na xibla yi ndaysaan ma noonu gis ngeen ka muy àndal ànd ak moom <laughs> ndaysaan ma noonu Serigne ba xàmmee ngeen ko ndaysaan ma ngay nuyoo aj na bi aj na loxo bi ndeysaan aj na loxo bi moom Serigne Ndiaye ma ngay léemu ma léemu ndeysaan <laughs> ku nekk sa problème nee na day rendi nee day rendi nee na moom Serigne Ndiaye laa ilaaha illallah awaay ah lamb ji commencé na waay ma ngay léemu léemu ba noppi sottee ko na ndeysaan ma nga noonu aj na loxo bi benn loxo ni joor bi ndeysaan ñu ngi koy sotti butéel yaa ngay ñëw gannaaw ba Doudou Sané duggee ginnaaw ba Franc duggee Serigne Ndiaye dégg ngi noonu dugg si ci compétition bi ndeysaan ma nga yëngu <laughs> laa ilaaha illallah ay waay làmb ngi nii waay i njaay de si na ma ngay sotteeku ma nga yëngu yëngu na ndeysaan yëngu na yëngal na yaram bi yëngal na ko <laughs> ma ngay dox ma ngay dox tey mënut a yomb. adim adim adim. déedéet ma ngay dem ci géew bi ma ngay wër di wër di wër. Ndeysaan ma ngay wër moom Serigne Ndiaye ma wër Ndeysaan ñu ngi koy wisal ndeysaan Toubacouta ngi noonu buuru Saalum ndeysaan saan nga noonu aj na loxo bi ndeysaan dugg si na moom Toubacouta Toubacouta ngi noonu ndeysaan cey lam ma ngay sotte Toubacouta nga noonu <laughs> ndaysaan champion la ndaysaan ndaysaan yëkkati na Senghor ba sottil nañu ko butéel ndaysaan mu ngi noonu sengoor ya ñu ngi ko koy jàllaleel jàll na yëkkati na ko ma ngay jàllaat jàll na ma ngay jàllaat ndeysaan jàll na ma noonu di dugg si moom Toubacouta ndeysaan ma nga noonu ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu di dugg dem Para que a mi peruana, porque la parte vecina. Para que a mi peruana, porque la ñaanal ko rek arbitre bi nee na daanuwul kon combat bi dañu koy bërewaat ndaysaan stade baa ngay yëngu arbitre bi siflé waat na mbokk yi Petit Lo moo la féete ndijoor ndaysaan xale yaa ngay yëngu Ada Boy Baol a ngi noonu waa lii lan <laughs> yëngu na Franc yëngu na Franc yëngu na laa ilaaha illallah stade bi jóg na Toubacouta Serigne Ndiaye ndeysaan Fara Doudou Sané Ada Boy Baol Boy Faye ñu ngi yëngal stade daw nañ mbot ko mbot nañ mbot na war na ko ndombo war na ko dombo Petit Lo na ko ndombo mbot nañu ko tàqali ko ñoom ñaar mbot nañ Petit Lo la ilaha daan nañ ko jël bu rëy oh. daan na ko jël bu

ndeysaan Franc ngi noonu tay dina yomb tay du yomb xale yaa ngay yëngal ndeysaan ndeysaan Franc ma ngay étiré wu moom Franc ndeysaan wala mu waaj a sifflé ku jë premier combat poids lourd Famara Bassoul ak Famara Bassoul moo la féete càmmoñ Toubacouta moo la féete ndijoor moo la wan ginnaaw Toubacouta léemu na Famara Bassoul Toubacouta ndaysaan ñu ngi noonu Famara Toubacouta Famara moo la féete ndijoor Toubacouta moo la féete càmmoñ Pamara jiital tànk càmmoñ Toubacouta jiital tànk càmmoñ Toubacouta nekk njool mu sëgg Famara nekk ku diggu dëemu Famara sa ndaysaan waay lii la la ndaysaan a fiya ngan koy ka i simin ba sum Toubacouta te ref les ferrailleurs de Colobane les ferrailleurs de Colobane Famara ba sum Toubacouta boobu nga xam ne yegg ñu ngi leewaatoo Toubacouta daw na jël ko Famara bañ na Toubacouta reculé Famara Toubacouta Toubacouta Famara daw na jëli ko Toubacouta tëru na ko Famara ànd ak Géej Njaay Senghor waaye ay xaritam ay soppeem ngi lewaatoo mooy Ismaïla Njaay borom Njaay Fatick Famara Toubacouta Karamba gi salaam ànd ak ay bagage yu bari kon ay station Karamba Karamba yee la Ndeysaan Karamba yee borom seexil Guinée yi moo yegg si daaw na jël ko. Famara jël na Toubacouta Toubacouta tëru ko. dara xewagul. daaw na jël ko Famara Toubacouta wër na dombo ndomba Toubacouta wër na ko ndomba Toubacouta wër na ndomba Famara ndaysaan Fambuda ak Toubacouta Toubacouta wër na ko ndomba Fambuda taba Toubacouta yëkkati na ko bañ na jug baasul ak Toubacouta Toubacouta nga koy jéem day génn saaku yi wër na ko ndombo xewagul day génn saaku yi Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na Famara premier combat ci compétition bi mu ngi noonu Boy Faye moo ngem boo ngem lu ñuul li ñett ci tribune bi am nañ maana macha <laughs> ndeysaan ah. waaw say mu ngi noonu Famoura ndeysaan Boy Faye moom premier combat baa ngi noonu ngembo ngemb lu ñuul li ndeysaan mu ngi noonu ma noonu

mbokk yi arbitre bi ngi noonu di waaj a sifflé premier combat Emine François Gomis mbokk yi di Franc ndaysaan ginnaaw ba mu bëree fële ci arène nationale diggante ak Sokh am ta ndam mu ngi doog a bëriwaat ñu xool première sortie Franc fii ci li traditionnel cinq millions Franc nu muy def day delloo mbattu ca ndaala wala déet ma ngay lewaatoo moom Franc ma ngay lewaatoo ndeysaan xale ba muy bëreel muy tuna xale bi daw na jëli ko Franc bañ na ndeysaan daa bëgg a jàpp xale bi xale bi bañ ña ngay bëree ndeysaan Franc ngi noonu ndeysaan ma noonu ña ngay lewaatoo ba tey ña ngay lewaatoo booy bi daaw na jëli Franc Franc koy jéem a jàpp bi ngàdd na ko jëli na tànkam ñu ko bëgg a bëree ndaysaan ñu koy bëgg a bëree xale bi daa bañ ndaysaan poids lourd ak poids léger ci compétition bi ñoom ñaar ñëpp ay poids lourd lañ lu mën a xew mooy ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan Franc ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi ci combat bi ba tey combat ngi bëgg a diire ndaysaan xale baa ngay bëree bi mooy premier combat Franc ci compétition bi mais moo nekkoon premier combat Boy Faye ci compétition bi avertissement Franc avertissement adversaire bi ndaysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey ndeysaan Franc ma ngay lewaatoo booy bi daw na jëli ko bañ na ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi lewaatoo Franc jàppagul booy bi bañ na Franc da ko bëgg a xale bi bañ booy ba tëj na bëre bi ndeysaan ña ngay bëre Franc bëgg na ko sol booy bi bañ na Franc jëli na ko Franc jëli na ko Franc jëli na ko daan na ko waaw daanu na waaw waaw waaw ah, waaw Franc daan ko c'est normal sifflet moo leen boole sifflet moo leen di tàqale ndaysaan sifflet moo leen boole moo leen tàqale c'est normal ndaysaan Blindé mu ngi noonu bu Grand Médine ndaysaan Abou Ndiaye Blindé mbokk yi Abou Ndiaye moo la woon ginnaaw Blindé nga jàkkaar lool Blindé Abou Ndiaye ndeysaan ñu ngi noonu Blindé Abou Ndiaye Blindé Belenda Abu njaay Belenda Abu njaay daan mbokki premier combat Doudou Sané ci compétition bi ma nga noonu moom Doudou Sané moo la woon ginnaaw ngemb ngemb Lagos bi mbokki mu ngi noonu ma ngay lewaatoo moom Doudou Sané ndeysaan ma ngay lewaatoo signalé na nee na gisul bët ba daa fat Ndeysaan Doudou Sané moo la woon ginnaaw daw na jëli ko Doudou Sané jëli na xale bi xale bi bañ na ña ngay bëree bëre ngay daw na dóor ko tànk mu bañ Doudou Sané xëpp na ko ñu ngi bëree nee na aya Ndeysaan nee na ko mu ko dóor ñu ngi leewaatoowaat ñoom ñaar wéq na ko dóor na ko tànk Doudou Sané door na ko tànk ndeysaan ñu ngay bëre ñu ngay bëre ndeysaan ñu noonu ndeysaan ñu ngi noonu

ñu ngay bëre Doudou Sané Ndeysaan combat baa ngi noonu mbokk yi combat baa ngay xaw a diire waaye ku nekk ñu ngi ci digg géew bi Ndeysaan Libidor a ngi ci digg géew bi ndeysaan Serigne Ndiaye 2 mu ngi ci digg géew bi Ada Boy Bawol mu ngi ci digg géew bi Doudou Sané ngi ci digg géew bi ñu ngay bëre génn nañ saako yi ñëwaat ndeysaan mi ngi noonu arbitre bi siflé waat ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Doudou Sané ndeysaan mu ngi noonu ci compétition bi Serigne Ndiaye 2 aussi mu ngi noonu premier combat ci compétition bi ndeysaan mu ngi noonu Doudou Sané génne na ko combat ba daa ndeysaan arbitre bi joxe na avertissement def ak li ñu def dafa juum loolu du avertissement. lan du avertissement jàpp karaw nit si bopp loolu du avertissement. waaw karaw ci nit la parce que karaw si nit la bokk parce que karaw duuru saane noonu la ko Serigne Ndiaye daane. waaw noonu la ko daane te rakki buuse bi bi mu fi bëree ko tam def ay rasta tamit dañ jàppal si rasta yi di ko dóor. waaw boo xoolee combat arène nationale rek bëre dóor am na fa. waaw adversaire bi jàpp kenn ki ci rasta yi di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu daanu jaadu na. kon arbitre match foofu moom dafa juum. juum na dëgg la ndaysaan arbitre bi sif la waat na ndaysaan Serigne Ndiaye 2 xale bi daw na ko ndeysaan lu xew ndeysaan lu xew mbër bi ngemb lu na ci karaw gi ndeysaan lii lii lan la mais tamit arbitre yi Serigne mu ngi ci géew bi faw ñu xam ni karaw ci règlement bi la bokk mbër bu karaw bu ñu jàppee sa karaw bëreeg yow bu ñu la daane jaadu na jàppante nañ awoy awoy ndeysaan Serigne Ndiaye daan daan na daan na Serigne Ndiaye deux daan na Ada Boy Baol arbitre bi sifflé na moom mi premier Ada Boy Baol ci compétition bi mu ngi noonu premier combat Ada Boy Baol mu ngi noonu ci compétition bi Franc daan na premier combat am Doudou Sané daan na premier combat am Boy Faye daan na premier combat am Ada Boy Baol premier combat am a ngi nii Toubacouta daan na premier combat am ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngi ko door na ci suuf eh Ada Boy Baol Ada Boy daan na premier combat am ci compétition bi Yeah. daan door libi door a libi door a libi door daan na ko door daan na ko mbokk yi premier combat Mamady Ndiaye mu ngi noonu ci compétition bi arbitre bi sifflé na Mamady Ndiaye moom nga jàkkaarlool waaye tey damaa yaakaaroon sax bërewul Mamadou Ndiaye daa ñëw toog ci tribune bi sol yëreem laalul benn butéel ñu woo ko mu wàcc ci meeku takk ngembam ñëw bëre Mamadou daal Mamadou la daal Mamadou la ndeysaan mu ngi lewaatoo ki jiite délégation bi di Bara Thiam ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Abdou Diop combat bu nar a neex ñu ngi lewaatoo Baye Thiam Abdou Thiam Galas Kane ñu ngay lewaatoo ak El Hadj Sall ñooñu la ñu woo délégation boobu nga xam ne mooy les délégués. ndeysaan ku ne day taxaw sa kanam rek. kon Thiaté frère. bëre simple daal bëre simple la. kon délégation bu mag boobu. Toubacouta ku mu am. Bass Sa Thiès. Bass Sa Thiès. waaw ah, moo nekk nii. Bass Sa Thiès de Balla Gaye la gën a nduróol sax. Oh, mooy Bass Sa Thiès. combat bu neex. Toubacouta démb dafa daanu final. waaw Ndiol Géant moo ko daan. Ndiol Géant nañ ko bàyyi xel bu bari ñi. xale la boo xam ne day bëre. sa yaram foo ko song day bëri su la songee day bëri. bu la daanee day mel ni jëlu sax compétition. te léegi li mu xewal bu dakkut. waaw balaa booy di ko def léegi day pàddee te njool muy pàddee gën a bon. moo gën a garaaw. ndax jën yi daa jot. mu bëre. boo ko songee mu door a tànk bu la songee. nangul wàcc si Dakar bëre. non wàcc na fi Grand Yoff. Grand Yoff waaw waaye dafa ñàkk. waaw wàccaat na fi jën Iba Mar lañ ko gisagul mu wàcc wala arène wala terrain gaal gi wala arène nationale gisaguñ ko suma waaye àll bi oh mi ngi koy jeexal. ordinateur. Modou Faye. kooku mi ngi ñëwaat. waaw lu tax moom it ñu gën koo gis. waaw dafa gaañu woon si loxo. waaw dafa gaañu woon si loxo. waaye defar waa pour ñoom moom ak Alpha Niodior Cheikh Tidiane Niang. waaw Sélé Mélé. dinañ xëy na dañuy defaru pour waajalaat pour jëw. ndax booy gis nañ ku mel ni Franc gëj naa génn si si làmb waaye tey ñëw na lan nga gis ci moom ak état de forme bi mu indaale. xam nga Franc athlète la boo xam dafa complet waaye simple amul nga gis favori koo xam ne nga mu ñëw juum daanu mi ngi mel ni li daloon Doudou Sané keroog Gandiaye moog général Malika premier tour lañ leen daan ko kan mu nduur démb dañ kaa daan lamb simple amatul favori léegi ndax booy buñ lay daan doo ko yëg ndax yow li ngi leen di ñoom duñ la sóoraale si loolu loolu nañ ko bàyyi waaye Sa Thiès ngi daw merci merci am na solo ndeysaan Zayan Sa Thiès ak Toubacouta Toubacouta Sa Thiès ñu bëre wëree nañ Mamadou Ndiaye jël na tànk bi da koy buddi Mamadou Ndiaye jël na tànk bi da koy yëkkati dina jóg Mamadou Ndiaye jël na tànk bi yëkkati na ko wàcce waat na ko da koy yëkkati na ko daaluwul laa ilaha illallah wëcc nañu ko wër nañ ko ndomba waaye lii lan la eh Mamadou Ndiaye daan na ko laa ilaha illallah eh, oh. cat fii cat léegi noonu Thank you. mën naa doon champion. daa ñibbi si ndax laa mu kese. mbokk yi deuxième combat comp ci compétition bi Boy Faye Paul Menthe Paul Menthe di joor waaye Boy Faye moo ngem boo lu ñuul li Paul Menthe Boy Faye ndaysaan Paul Monté Boy Faye Paul Monté Boy Faye Paul Monté Boy Faye Boy Faye na jëli ko daw na jëli ko Paul Monté bañ na Boy Faye Paul Monté Paul Monté caxabal na ko Boy Faye bañ na kalu biti ndaysaan Paul Monté Boy Faye ndeysaan Ada Boy Baol ak Moussa Diop ndeysaan Paul Monte Boy Faye mot na Boy Faye daan na Paul Monte Boy Faye daan na ko ñu ñëwaat ci Toubacouta ndeysaan Toubacouta Bassa Thiès waa lu yaa ngay génn rek ci compétition bi. Grand Ndiaye gi noonu Grand Ndiaye. Mamadou Ndiaye. kii mooy la la ren. jatli la la ren. kii mooy borom ñetti génération yi. waaw dafa bëreeg ay moromam. waaw bëreeg ay magam. waaw ñu ay jarwaatam lay bëreeg ay ay ay doomam. wallaay dëgg la. 2002 ba léegi. ñu mbokk génération bàyyi nañ. 2002 ba léegi mu simple bi. kon néewul doole de. sa dina jeexal booy. dina jeexal booy yi. Ndaysaan Bass Sa Thiès ak Toubacouta ñoo ngay bëre Toubacouta Bass Sa Thiès ba Sa Thiès tu ba Sa Thiès Toubacouta ña ngay bëre yombagul ba Sa Thiès tànk bi ba Sa fee ñu ngi ci mudaay na ak Franc arbitre bi sifflé na mudaay na ak Franc ñu ngay lewaato mudaay na ak Franc mudaay na ak Franc ñu ngi ci compétition bi mu daay na Franc mu daay na daw na jëli ko mu daay ne daw na jëli ko mu daay ne Franc mu daay Franc mu daay jàpp bi baax na Franc bañ na mu daay ne Franc ñu ngi ci compétition bi mu daay ne Franc mu daay ne jàpp na fi mu jàpp na mu daay ne fi mu jàpp na Franc bañ na téena bopp bi mu daay ne mbot na yegg nañu mu daay ne Franc mu daay da franc <laughs> mu daay da franc ñu nga ci bi ñoom ñaar mu daay da fi mu takk baax na tegal sées ma ngay xeeñ franc crochet na loxo loxo bi mu daay na franc est-ce que mbot mun naa am wala déet mu daay na franc mu daay na franc ñoom ñaari mbëri ndaysaan Moudaye de Franc Moudaye Moudaye de ak Franc <laughs> Moudaye de ak Franc Moudaye de fum jàpp baax na Moudaye de ak Franc ñu ngi ci compétition bi ba tey Mboudaay na ak Franc Mboudaay na na ko ndeysaan Mboudaay na ak Franc Mboudaay na ak na ak Franc Bou Daayda ak Franc Bou Daayda ak Franc ñu ngi jàppante ba tey Bou fi mu jàpp baax na Franc mbot nañ saaku yi da koo bëgg a jeexal Franc ngay arrière Franc ngay arrière daan na ko daan na Bou Daayda Franc daan na Bou Daayda daan na ko jël bu rëy Toubacouta Toubacouta Toubacouta Sa Thiès ba Sa Thiès ak Toubacouta combat bi yàgg na ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta Bass Sathies Toubacouta Bass Sathies Toubacouta Bass Sathies Toubacouta Bass Sathies Toubacouta Ndeysaan Bass Sathies Toubacouta ñu ngi jàppante ba tey lamb ji tey lamb ji daal dama yaakaar lamb saltige la ku nekk ngi ñëw di wane boppam

ndeysaan ba Sa Thiès Toubacouta ba Sa Thiès Toubacouta combat bi wala du ba Sa Thiès Toubacouta mu ngi ñëw nii Bas jël na koy jongale Toubacouta bañ na Bas Sa Thiès arbitre bi sifflé na Ada Boy Baol Serigne Ndiaye mbokk yi ñu ngi noonu ñoom ñaar Ada Boy Baol moo la woon ginnaaw Serigne Ndiaye 2 moo la moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Doudou Sané mu ngi ci moom it Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Doudou Sané ma nga ca compétition daw na Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ñu ngi bëre Ada daw na jëli Serigne Ndiaye deux bañ ndeysaan Ada na ko Doudou Sané jëli na Doudou Sané jàpp na tànk ba booy bi rëcc na laay laay la laay ñu ngay booy bi rëcc na Doudou Sané nga koy añ mu jaay doole booy bi bañ na ana booy bawal Serigne Ndiaye Doudou Sané jàpp na booy bi booy bi bañ ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan Doudou Sané daw na jëli xale bi Doudou Sané na ko mu ngi koy génnee Ndeysaan Boy Bawol Serigne Ndiaye Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada booy Baol Serigne Ndiaye Ada jàpp na ci kiwi saar bi Ada Boy Baol jàpp na ci kiwi saaru Serigne Ndiaye bi ñu ngay bëre ñoom ñaar Ada Boy Baol Serigne ñu ngi ci compétition ba tey Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Ada daw na jëli ko Ada daw na jëli daan na ko daan na ko daan na Ada Boy Baol wala déet arbitre bi bi woowaat na na leen nee na jël amul ay ca mbokk yi arbitre bi waat na Serigne Ndiaye Ada Boy jël na tànk bi jël na tànk bi Ada rëcc na Serigne Ndiaye fa ko jël na Ada bañ na ndaysaan Ada ngay bëre Serigne Ndiaye zongale na ko tegal na na daan na ko daan na ko daan na Serigne Ndiaye daan na Ada Boy Baol mbokk ngi noonu Franc yëngu Franc yëngu ndeysaan Doudou Sané avertissement adversaire Doudou Sané ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan bi sifle waat ndeysaan ba tey Doudou Sané mu ngi ci combat bi ndeysaan Doudou Sané mu ngi ci compétition bi moom Doudou Sané ndeysaan ñu ngi noonu Libidor nga jàkkaarloo waaye Doudou Sané moo la woon ginnaaw ci combat bële ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi ci compétition bi Doudou Sané daw na jëli xale bi booy bi bañ na Doudou Sané faqat na ko booy bi bañ na ña bëre booy yi dañoo na koo lu ne def ñu bañ xale yi beneen affaire la ndeysaan Doudou Sané ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan daw na jëli ko combat yaa ngay dem ña ngay dem boromam bu ko déggee na dem déplacé ko AA 788 OL mu ngi ci buntu bi. ndeysaan kooku de kooku de man lay wax fi ma gaare sama oto bi te fi ma ko gaare baax ma <laughs> ndeysaan ñu ngi noonu. yaakaar naa ne tey arbitre bi daa ngi wa waaye dañu jàllat pirement rek Doudou Sané mooy le Messi de Mbour muy monsieur ndeysaan ak xale ba Karamba la ñuy woo délégation Karamba la ñu bëgg mu ñëw fi indi teranga bi ñu indi ci làmb ci tey ñu tuddee ko bés bi kon monsieur Karamba le Messi borom Simitini yow la ñuy woo borom Mbour Géej yow la ñuy woo waaye doomu lay Géej Ndiaye le sant Idriss yow la ñuy woo waaye xarit Ismaïla Ndiaye ndeysaan ñu ngi noonu Ousmane Sarr émile François Gomis Abdoulaye Diouf émile François Gomis Abdoulaye Diouf quart de finale Libidor moo la woon ginnaaw ren boobu quart de finale quart de finale Libidor moo la woon ginnaaw quart de finale Moustapha Dramé Ousmane Bar Ndiaye Assane Faye Ousmane Bar Ndiaye Assane Chérif Adramé Kairé Aliou Konaté Chérif Adramé Kairé Aliou Konaté ngi noonu daw nañ fàqat ko jëli nañ ko Mamadou mu nar mu koy wuyu laa ilaaha illallaah daa dox wala déet daanu ko booy bi dër na ko day ñàkk day ñàkk day ñàkk Mamadi dina ñàkk ay waay Mamadi dina ñàkk ndeysaan penalty la ci làmb waaw waaw daan na ko booy bi daan na daan na Mamadi Ndiaye